asalaamualeykum waa warium Sénégal mouvement sauver le Sénégal ñëwut na seen baatu président El Hadji Malick Konté leen wax rek ni dimanche jàmm audio bi dañ ko préparé pour dimanche waaye ñun dañ naan alhamdulillahi rabbil alamin ba pare ne sallallahu ala muhammadin yàlla ku ko sant sant na boppam ku ma sant loolu la wax moom buur yàlla borom et pourtant defaluñ ko dara yàlla moom mi nga xam ni moo amee lépp moom lépp mot fu ne yàlla moom mi nga xam ne moo bind mbindeef yëpp te kenn bind ko amul ndey amul bàyyi amul soxna amul doom soxlaal ñu dara ñu rek ñoo ko soxlaal yàlla moom mooy day moom rek lañuy ñuy ci moom rek dañuy yaakaar ci dara yi kan nag ki nga xam ne ci leer yooyu mu bindoon concentré ko.

corps militaire paramilitaire ñun ñëpp ñoo bokk ndey koo ci rey rey nga sa doomu bàjjen wala sa doomu yumpaañ wala sa doomu lijaay wala sa cousin wala sa xaritu mag wala sa xarit kon nag lan moo ko fi jaar ci nguur ñoo xam ne ñi ëllëg ñoom ñooy àndaat bokkaat benn gouvernement dama bëgg ngeen yeewu ci li mu leen di wax de Lamine Gueye à Senghor à Mamadou Dia dañu ko nettali amoon na plus de sept cent ou huit cent morts ci lañ taaloon kër Khalifa Ababacar Sy événement yi demoon na ba dégénéré waaye fu ñu mujjee Lamine Gueye ak Senghor créé waat UPS ñoom Ablaye liy jóge fa daan waat ci PRA ñu xeex ay bakkan dee ay ñoo xam ne ñu leen tiire seen tànk dam fan la ñu mujjaat benn gouvernement bokkaat nekk PS ana ñi deewoon ni ana doomu jàmbur ak jëkkër jàmbur yi duggoon ci biir suuf naan dañu oote révolution ana ñu gisuñu nguur ñamuñu nguur la taqantuñu sax ci nguur gi wala ñu cëpp seen baaraam ñam. de Abdoulaye Wade à Abdou Diouf ñaata cabine téléphonique lañ fi yàq ay milliards ñaata magasin lañ ci piyee Sotrac ñoo ko daaneel cabine téléphonique yeeg yëpp taal dëkk yi taal tali bi yàq lépp fan la ñu mujj Wade bu ñëwee dem cinq ans bu ñu waatee bu ñu ko gañee mu dugg ci gouvernement bi ak ay ministres am pendant huit ans jóge fa jiwoo di boot ak Abdou ñu rey fi maître Babacar si rey bu ñaaw te deful waxul innocent la un grand juriste ñu ko rey ñu ngi piitee ñu amnistie leen ñu génn. mais pourtant bañ ko bañ ñu rey Me Babacar Seye réew yi policier def ñuy handicapé pourtant justice fa faroon continuer ñu def càmbar ba xam kan mo leen rey kan pourquoi ñu dépôt dossier bi di loi Ezzan encore jégaat ñoom ñep ñu andat bokk ndey bokk bay tay ji anamu tey ana Idriss Seck Abdoulaye wad bi bu ko Abdoulaye di japp fi lan la waxoon Abdou Diouf bàyyi na Abdoulaye di alal ju jeex Abdou Diouf gor la liggéey la liggéeykat la mu ne Abdoulaye wad moko non ñaari grand bandi buñ démé demee corps fatlikou len fàttaliku

mais aussi mun nañ la loi parce que man mais la justice sénégalaise nous avons confiance en vous a aussi loi si nous avons nañu avons loi loi d'amnistie nga nationale amnistie ak député aussi leen c'est ça pure la vérité an nous avons la ñu dem coalition la Idriss taxaw na waw bala dem ci ñom tan ñu ba def coalition ba def suñu dis Idriss Seck taxaw nan waw may sama kër dem dé sama kër dem année milliard la année yëngu-yëngu yi fi amoon yi Idriss Seck ba léegi xamu leen ni Idriss Seck fara feñe la xam leen Idriss Seck fu mu laa jëm droite la jëm xamu leen Idriss Seck lu ko omni bi rek mooy de pouvoir te wallahi bés bu jëlee pouvoir bi ngeen xam kii Idrissa Seck alxuraan yi muy jàng yi pour lan la ay aaya ngay xëccee alxuraan alxuraan ñëpp ko jàng gis nañ fi ay xale yu am sept ans gis nañ fi xale yu jël coupe du monde alxuraan gis nañu xale yu am huit ans wàcc alxuraan gis nañu xale yoo xam ne bu ñu a jàng ñëpp a

duma ma loi duma ma état de droit duma ma wàcc du ma jàkkaarloog yi parce que li ko may mooy ñaari mandat de cinq ans yu teg yu cinq ans la ñu waxoon effectivement dëgg la Abdou moo ko fi defoon du Abdoulaye Wade ñaari mandat yu cinq ans ama bu amul référendum boo defee ñaari mandat da ngay dem su amee référendum le premier mandat de sept ans est caduc kon yéen juristes yi war ngeen toogaat ngeen waxtaan waxuñu nag juristes yu bokk euh, parti socialiste wala yu bokk euh, euh, kii apastif wala yu bokk ci APR non non non des vraies justices indépendantes ñoo xam ne bokkuñu fenn ñu toog toj droit bi ñu xam ko le pur dëgg la vérité cour conseil constitutionnel la justice war ngeen ñu wax est-ce que Macky a droit à un troisième mandat ou non avant qu'il ne soit trop tard su boobaa sëriñ si ak clergère bi ak kilifa diine kilifa aada yi ak ñi am seen njaboot dañ leen ne hey loi bi kat neena na Macky Sall am na droit en troisième mandat su fekkee ne ngeen Macky Sall kenn bëgg ko Macky Sall baaxul yéen ko bañ yéen ko ëppale programme yéen ko mën mais su boobaa ñu dem élection ku nekk dem vote ji suñu paree añira sangu ngeen bay jël doomu jàmbur def leen bayu sarax ak bayu ndëpp jël seen doom làq seen biir kër jël seen jabar ak seen rakk yéen bokkal nday bañ laq seen biir kër jël seen yaay ak seen papa ak seen ñu bañ laq laq seen biir kër di sacrifier ay doomu jaamul parce que ci ay baba ngeen joge amu leen yërmande léegi est nañu woote jàmm la te ñu xam ni dëkku Afrique yëpp a ngi tàkk ak coup d'état te ñu xam ni naar yëpp dëkku naar yëpp a ngi tàkk te ñu xam ni Ukraine a ngi nii ak URSS te ñu xam ni dëkk bi sax moo stabilité actuellement le Sénégal fu pétrole commencé génn or gaz uranium fibricon jamaa yi lépp di génn indi ko ñu sant yàlla déedéet ñu bëgg yëg yëg yëg fitna. non seulement loolu takk bailleur de fonds yi daw yóbbuwaat seen xaalis ñi amul seen xaalis rawale ko ñi nga xam ne jël nañu seen magasin piyee ko sàcc ko ak lu ñu mënti am ëllëg ñu ñàkk di fayat banque est-ce yéen am ngeen xelu xalaat ni yéen yéen mën ngeen a coacher état bi wala ngeen yërëm askan bi askan da nga ko yërëm donc tey nañu toogaat ñu xool kii kii équipe ba faire quoi et le peuple sénégalais maa ngi di wax tànn leen seen bopp dofu leen dina jàpp leen sëriñ si clergé bi xam ngeen ku baax ak ku baaxul xam ngeen ni ku juddoogul di woote insurrection ak résistance fukki bakkan ak ñeent di ci dee ñetti bakkan di ci dee ñu dem bu yàggee dina egg téeméeri bakkan wala junni te gis nga ñii tey jii bu ngeen demee ba alkaati yeeg gendarmerie ragal leen daa ñu dugg seen kër yi jël seen i doom di leen laaj aération comme ay États-Unis kii mooy doomu kilifa sëriñ diw kii mooy doomu milliardaire diw kii mooy doomu diw boo indiwul diw ñu rey sa doom wala boo indiwul ñu rey ñu rey sa jabar wala sa rak foofu lañ jëm ak Sénégal ndax nag Sénégal léegi amatul benn loi ken faaltul état de droit ken faaltul constitution lu lu neex def ñu ngi jaay tunu yi ci mbedd bi waxna ko ba tay ñu ngi jaay paak yi ci mbedd bi waxna ko ba tay tay gaa ngi confectionné ay carte professionnelle yu gendarmerie yu police yu armée yu douane yu administration yu préfecture rek lu nekk amul benn corps de contrôle man maa ko wax année prévote année armée année police à la gendarmerie lu tax mënu ñoo wàcc un mois seet seen corps ñan la ñu mën ko segg xoolaat le ministre de l'intérieur nekk fii nelaw rek ñu ngi rey ñu ngi agressé ñu ngi violé drogue baa ngi dugg un peu partout comprimé yu bon yëpp ñu ngi koy jaay ci mbedd mi ay garabu garab yu nga xam ñoo jaay garab naan man maay diw ay dara maay nangam mun naa faj bët ci ci cinq mille te man yi lañ leen dàqee ñuy dàqee leen seen dëkk yoo xam ne xamuñu dosage yi nan la pharmacie yeeg léegi amatul ñu ngi génne ay produits bitim réew di ko fi indi ba léegi pharmacie mënut a jënd mënut a defar seen produit yi jaay ko mais su boobaa yéenay tëj pharmacie su boobaa yéenay créer chômage ana le ministre de la santé ana ministre oui, oui, financer Khali. l'avenir de demain l'espoir de demain cette vaillante jeunesse qui va nous juger demain devant la table de l'histoire Khali, yi nga xam dañoo am set am dañoo set loxo yi nga xam ne école am nañu un diplôme ñii jàng nañu alxuraan am nañu un diplôme ñii jàng nañu Arabe. am nañu un diplôme Nous am nañu métier ñooñu nga war rôle. xool Moustapha Diop en commençant par toi D'air, ak financement avec ak le ministre de l'emploi Khali, yooyu bu ñu mun ci fonction publique mu ñu nekk ay fonctionnaires mais ngeen jël leen financer leen ñuy liggéey c'est ça la vérité dëkk bi toll na foo xam ne actuellement ku ci nekk xale yooyu war ñu am kër war ñu am jabar war ñu am doom war nañu dimbali seen ndey ak seen bàyyi war nañu am la liberté économique am soxla faj ko mais tey jii yéen ñëpp ku ngeen di financé ay militants APR ku falu daal faloog say ñoñ say géwél say goro say xarit say ndijaay say rek yi nga bokkal nek bay wala nga bokkal bay say cousin ay sa kii kii mooy ki ki mooy sama doomu turandoo ñoo nekkoon fatik wala ñoo nekkoon euh, Joal wala ñoo nekkoon euh, euh, fu ken xamul ah Kébémer ah ay la dynastie familiale sama doom mooy nekk li sama doom mooy nekk lële est-ce que lolu mën ko continuer te ñu am ay xalé yo xamni ñu ngi fii ak bitim rew à la place qu'il faut l'homme qu'il faut am diplôme te foo leen teg ñu liggéey ñu war leen préparer ñom ñoo nekk suñu ndono ëlëk tay ngeen japp xalé yu hypothéqué leen depuis Senghor rek Mamadou Dia depuis Abdou Diouf ak Ablaye Wade ba ci Ablaye Wade ak Macky Sall ñu fi nekk ñëpp ku ci nek lo gatt gatt falu nga trente opposition beeg ñëpp est-ce que den amu len jom ak vertu ak personnalité ngeen dem ngeen démissionné Barthélémy démissionné député wala nga démissionné maire Ahmed Aïdara démissionné député nga député maire nga war a maire Y'a ngi woote conférence islamique da ngaa bàyyi bañ na affaire aji euh, affaire Mame Mbaye Niang ak Sonko.

affaire u Ndiaga Diouf ay affaire Abiba ak yi fi am yëpp ay affaire u euh, euh, faux billets Boubacar ah, ay député yuy def ay ay passeport diplomatique effectivement ñoom ñëpp ñoom ñëpp dañoo dàq assemblée nationale def ay faux mariage ñoom ñëpp a yem ak député pur ay député taxaw assemblée nationale naan maag ci sa sal dooruñu xaaj bu bari ci waxtaan bi maa ngi ñu def nañu ay transaction financière kenn du leen jàpp ah si su la député ndax xam na ñuy jaay drogue ci ñoom la xam ne bo nga gerteeg bo xam ne ay ministres yu ay yu xam ne teer teer niñ ko niñ ko détourné pour mo porter bopam plainte nako procureur wo serigne bassirou gueye mo fi nekkon lolu yep ngeen mi xak mom ne pat ak mom mais yeen yeungal sénégalais yi parlons peu et bien man nak man mané xalé yi samay dom ngeen samay seuk ngeen ñi samay mak lañu ño bokku ndey ak bay way way bu la nek buy sorax ak buy ndeup way way yërem leen seen yaay te ngeen jang mi te ngeen jang école way way ut leen xam xam mo gën ngeen taxaw fi ñu def buy sorax ak buy ndeup ah ngeen di nek matul borom barké du ngeen jëriñ seen yaay dara du ngeen jëriñ seen réew dara yéen nañ jàpp leen sax ñoom seen doom yi ñu ngi bitim réew di jàng ñu ngi fii ci ay école yu bakkane yaa ngi fi am ay garde corps seen doom yaa ci école yu baax bu ñu paree ëpp leen di moo diplôme CFA leen ngeen nekk ay tuq ay geen ñaan leen yàlla jiite wala ngeen yàlla ànd man li ma wax c'est pour la population sénégalaise may wax nag opposition bi daq ngeen armée bi ak la police ak la gendarmerie ci affaire Adji Sarr ak Sonko délogé ngeen leen ci seen camp loolu xam nga ni am na lu bu ñu waxee dëgg am na ay rebelle wala ay force yoo xam ni tapis dans l'ombre ñu ngi leen di accompagner parce que nag yéen mën leen déloger gendarmerie ak police maintenant les gendarmes les policiers l'armée la douane ba ci sapeur pompier yi ñoom ñëpp suñuy doom suñuy jarbaat suñuy sët ñoo ci nekk duñu nangu ngeen di leen rey di leen humilier devant la nation et devant le monde entier ngeen leen dàq ñuy daw comme ay jigéen comme ay lëkk dàq ngi leen xayal dàq ngi leen laax langue de barbarie fu ngeen leen fekk saaga leen day taal ay pono saan leen ay xeer bu ñu jël seen oto daw waaw ëllëg kan mooy aar réew mi ëllëg et pourtant armée bi ñu ngi ci frontière yi armée bi ñu ngi Casamance armée bi ñu ngi sur le plan national sur le plan international bi ñoo ñuy aar que am ngeen jom yéen amul lu ngeen di fayee armée police ñu ngi ci seen poste

actuellement su boobaa nag ñoom seen affaire la ndax nak légitime défense du ngeen fi nek ci ay fen bu ngeen paré dugg ci magasin yu jàmbur yi sàcc ko rey suñuy doom indi fa ay problème su ngeen paré ngeen jiwaat bokk benn gouvernement Sonko limu waxon suma jëlé nguur gi damay fusiller Abdou Diouf damay fusiller Abdoulaye Wade Sonko li waxon duma du ak ñi ndax tay ànd ak yow askan biñ ko nek aji sar Sonko bu fekkee kay mom lalewul taqewul violewul demu amu amuñ ci woon benn problème lu tax du wuyu ji lu tax saa ko woote wooy rek mu ne injection de substance lu tax à chaque fois opposition bi man mani le président de la République Sénégal le ministre de la justice le ministre des forces armées la police la gendarmerie la justice prenez votre responsabilité prenez votre responsabilité il est temps que ñom ñep ku fi injection ak résistance bañ jël ay boutique jambour wala ay magasin jambour wala ay station jambour dajji ay banque atlantique rey fi nit ils sont responsables il faut que ñu dem cueillir leen yobul leen assise nit ki mën nga dem ci politique dem ci politique nga gañe yalla moy fal du nit moy fal waye par force ma jaar ci ay niw par force ma jaar ci ay ay taxet par force ma dajji ay magasin jambour toroxal leen soga dem jël au pouvoir ñen ne kon ñoo ñan lañu ay bandits de grand chemin ay criminel monsieur Ablaye wad yow lay tijjee ak ma naw ak ma laa respecté ak ma bëgg dégg sa sortie bi passé nga sama dom du invité injection sama dom du du dirigé wu sama dom du xeex sama dom du xuloo c'est le meilleur candidat deug la waye it yooyu koy wax ndax nak kuy sang sa wujju te ngeen di jamalé té bëgg la suñu ñu nga sanko xam nga du set président depuis 74 ba légui ay noble nga andal ay gor nga andal

dem bu sone si nga foon ñi ko nit ñi ko laay ñu ko foon ñun ñep ñu nga foowoon Karim Wade ma nga foowoon mais batay xalé xale pourtant ay papam yorna ay dossier pourtant xamal na ñu bari euh, lu bon mais est ce que dégg Karim Wade di woote insurrection ak résistance walu nan PDS jógal ngeen xeex bu ngeen waxe ngeen dafa ragal ragalul parce que xam na ni Sénégal ëllëg bu ko jëlee il sera le futur père de la nation sénégalaise du doomu cri du criminel du reykat nit du bandi du sàcc du koy toroxal dafa bëgg population bi yërëm leen du andi doom yu góor yu jigéen mu ngi leen bàyyi bitim xam na ko moom mën di sacrifier ay doomu jàmbur waaye ñi nga xam nag dañoo dem ci babaay dem ci xërëm yi dem fu nekk ñu naan rek sacrifier ay nit ñoo ñëwee gën di woote injection à distance kon sénégalais sénégalaises maa ngi leen di wax ni ngeen yem Khalifa Ababacar Sall Malick Gakou est-ce que am ngeen jom est-ce que am ngeen vertu du lii leen Léopold Sédar Senghor jànkaloon du lii leen Abdou Diouf jàngaloon du lii leen Ousmane Tanor Dieng jàngaloon du lii leen seen bàjjen Aminata Mbengue Ndiaye jàngaloon du lii ñoom Djibo Ka ñoom Habib Thiam ñoom ñëpp du lii lañ leen jàngaloon déedéet génne ay doomu jàmbur bàyyi seen doom yi seen kër yéen ngeen ngeen di ngeen xëcc réew mi ëllëg gën a ëpp fitna ñëpp su ngeen génnee xam naa yéen seen doom yu góor yi jigéen ñi kenn du ci génn kenn du ci dox mais xool ñi ngeen di xool leen ñi ñuy dajji seen magasin ñi jógee états ni jógee France ni jógee Italie ni jógee Espagne liguey fa pendant 20 ans ñoo investir Les banques, banques ngeen xëy des lépp station yeeg crédit mutuel yeeg banque yeeg Auchan yeeg magasin yeeg magasin tous té te nous, ñëpp seen i militants am ñoo xamni ne ku ci nekk am ko koy support si yéen waaye ñooñu ndax réyu leen te ñu ngi dund sénégalais sénégalaise je dirais que l'armée la police et la gendarmerie on vous tue mais on ne vous déshonore pas duñu nangu mukk ñu leen ndax suñu ngeen doom ngeen aussi monsieur le président de la république Sénégal su fekkee ne fit on ne gouverne pas avec des gars blancs su ne am sécurité bi ñi ñu nous leen ñu Sénégal guerre civile volcan bi ma gis exploser Sénégal dem bay lekk ñax dañ ne rek mu ngi tur mu ngi ci biir suuf ji nañu muy pétrole bi or bi gaz bi jamaajo lépp uranium fibre ko lépp dara dara dara ballagul pour ñu pour ñu koy exploiter ngeen bëgg ñu wax dëgg indiwaat benn fitna te pourtant li amoon fi depuis jamonoy Senghor mun koon exploiter Abdou Diouf fekkoon na ko fi waxoon na ko fi Abdoulaye fekkoon na ko waxoon na ko fi mais ci nguuru Macky Sall Macky Sall nag moom effectivement moom moo waxoon du def deux mandats de cinq ans moo defoon du wax du def référendum moo waxoon que nag aussi que ni kat ay lay yéwén.

ci barke nga xamni ne tax ñu bind lépp ci barke arsh ci barke kursi ci barke malayka yëpp ci barke Seydina ma nga xamni ci lepp meñé maa leen ñaan yéen peuple sénégalais ngeen baña def guerre civile ngeen baña a tas Sénégal ngeen baña distribuer Sénégal nit ki bo jaxandi so sa kaw lay këpp yéen xale yi amagu leen avenir ceeb diwlin suukar café meew lepp momo augmenter augmenté ministre du commerce xolatul sécurité amatul ci réew mi Sénégalais yi frontières yaa ngi mel ni tamit foo billets yi drogue bi ñu ngi rey ñu ngi violé euh, comprimé yu bon yëpp li ku nekk noo jekko enrichir maay sëtu diw wala maay doomu xalif général diw wala maay sëtu xalif général diw wala maay doomu kilifa diine wala maay doomu clergé wala maay doomu ministre wala maay doomu député xool léegi ay doomu kilifa la ñu jàpp ci affaire faux billets ak ay drogue est-ce lii ça peut continuer tey xale yaa ngi nekk ci kaso bi

ci daraja ba ci daraja yi arsh ak kursiw ci daraja juróom-ñeenti malayka yu téye arsh képp ku bëgg a déstabiliser Sénégal yal na la yàlla déstabiliser ci barke Seydina Mouhamed allahumma salli ala sayyidina nabi lu mi